gëna a ci bop xibaar yi dañu koy doxé ak assemblée générale bu wa collectif des acteurs de la pêche bu yaraax ñu ci doon waxtaan walum bilan ak ëllugu ñeel bi lee kuréel mairie bu Hann Bel-Air dina jàppale li di centre de santé ak district yu nekk fi ci yaraax ci lu tollu ak fukk ak ñetti millions ci suñu koppar. ay leexal ak kii di Babacar Mbeng di meeru yaraax bu ñu jógee foofu ñu daal di ànd ak Ami Gueye Cissé mi demoon géeji yaraax ngir taataan kàddu askan bu yeewoo fii ci empêcheur ñuy àddu ci gaal yu seen boroom aj ci pegg yi te du leen jural ay jafe-jafe ci wàllum nekkuwaay wàllum tàggat yaram ñu ànd ci ak Xaadim Fay li ci gën fës di génn àdduna kii di staru basket americain bi di Kobe Bryant ginnaaw bi hélicoptère am defee accident. mbooloo mi ëmb ñiy yëngu ci wàllum napp te nekk fi ci Hann bel ñoo doon amal ab cérémonie ngir waxtaane liggéey yu ñu doon amal ci atum 2019 bi ñu weesu ak itam naka lañuy def ba napp gi mën a jëm kanam ak yeneen i poñ lu nu mel nag ñu ngi ko doon amal ci aan lebo gi dimanche bi ñu weesu Ibrahima Sall di seen président ci indi ay leeral. dañu war dem ci ay phase émetteur ndax gaal yu bari réer nañu te téléphone yi ñu leen jox nii 14 mois yi rek 14 kilomètres lay jël ndax bu dee zone sud. amul problème ndax dafa tefes mais bu zone nord en profondeur le sen téléphone sen réseau dotul baax léegi ñun ñi nga xol ni ñu leen joxe won ay téléphone nan lañu leen di joxe ay émetteur mais émetteur tamit toujours lu ñuy waxaat rek mom moy kenn fay ci dara mais nag équipe bi mom moy sélectionné yeen yeenay xol man damay wax rek indi leen damay wax rek li de baaxoon la ñoñu tamit am confiance di indi waye yeen ñi ñi denk nag ngeen di xol ngeen bañ def ay parlo ngeen xol ni mu gëna jaado ak ni mu gëna jekke ngeen jox ko ñoñu ñoñu jël ko utiliser ko te mu xam ne tamit ñëpp mënul daj ci ñëpp. xew-xew bi nu mel nag kii di Matar Diaw di adjoint au maire teewe woon na ko ba noppi di jaax nappkat yi ngir ñu gën a nekk benn ndax seen liggéey gën a jaar yoon. moolu yaraax yi ànduñu ànd bi dafa des. dafa des des bi mu des bi nag mooy loolu mooy indi difficulté Ibrahima Sall ak ku mel ne moom dañuy taxaw ne jàppale leen mool yi mais soo amee njaboot mu tasaaroo mu tasaaroo des fois. jàppale bi dafay des parce que bu ñëwee lañuy rawante gaal mën nañ ci def lu nekk parce que bu Diop mbay taxawee kese moom kenn mairie bi jël li muy jël ne a ah teg ci loxo Thierno Gueye Thierno Gueye teg ci loxo xale yi loolu moo fi mas a am xale yi nekk fête bu mujjee bi fii lañ ko ci bi lañ ko tegee mais kon loolu ngeen fexe ba ànd ci loolu fexe leen ko ba àndal quai de pêche ñi fa nekk ñi seen ay mag lañu seen ay nijaay lañu dafa am ñu ko yëkkati woon teg seen loxo leneen ak leneen CLPA nekk

toll ci fukk ak ñetti million ci suñu ay koppar ñel wàllu ma gu yaram altine bi ñu weesu ngir yombal fajug bépp doomu yaraax jaarale ko ci poste ak centre de santé yu nekk fii ci gox bi Babacar Mbengue di maire bu Hann bel ci ay leeral tey li ñu fi dajale woon dafay cérémonie subvention boo xamante ne conseil municipal bu Hann bel bi nga xam ne man maa ko jiite en tant que maire euh, dañ ko doon def at bu jot conseil bi dafa am subvention bu muy def war ko jëmale ci comité de santé comité de développement sanitaire donc ci structure de santé alors li am solo ci subvention yoy ñuy def fay permettre population yi sen bop ku dem ci structure de santé ñu faisons la bindal la ordonnance ñu mën la jox garab nga mën a jënd garab bi ci jëg bu njëg bu yomb loolu mooy intérêt wu subvention bi ñuy def loolu nag dafa bokk ci priorité au conseil municipal parce que at bu jot dañ koy def du lo xamantene ne duñ ne guleet la du lo xamantene lu bess la mais dañuy faratal en tout cas di accompagner les structures de santé parce que lolu dafa bokk ci liguey bi nga xam mom moom denk municipalité. liñ ñu dénk mooy dañoo bëgg population yi bu nit jugee ti commune en bel nga jugee Maris wala nga jugee Yaraax ne ma ngi génn commune pour outil ko fenen ñun suñu ambition moy lepp lo soxla ci walu santé ci lañu denk nga mën ko am fi

tay ñun mën nañ ko am sur place té loolu dafa bokk ci suñu mission ci walu fièvre aussi bëgg nañu en tout cas képp koo xamante dem nga am nañu ay vacataires yoo xamante ñi ngi fi ay spécialistes muy cardiologie di leneen ak leneen ak leneen loo xamante dañ lay toppatoo di la assister donc yenn cas yi nga xam ne dafa dépasser centre de santé am nañu ambulance yoo xamante ne moo leen di permettre pour que ñoom ñu mën leen acheminer ci centre supérieur yi nga xam ne loolu nañ leen dénk mais li nga xam ne moom

du médecin chef du centre de santé anne Mariste ak natangom bi ti Binta Djeysek nek médecin chef centre de santé anne sur Mer. il est très sensible aux problèmes de santé vraiment il nous accompagne li ñu soxla ci centre bi dans la mesure du possible mu ngi ci pour euh, le bien-être euh, des populations de anne sur Mer vraiment lui, c'est voilà je dirais que tout le temps da koy def régulièrement nous inscrire ci calendrier la on reçoit régulièrement des dons de médicaments venant euh, de la mairie euh, en dehors de euh, ça, chaque année aussi dañuy recevoir ay médicaments matériel médical nga xam installer dans dans les structures. donc l'initiative c'est que vous da ngay nekk sa gox am ay hôpital vous nekk sa gox nga appuyer di leen jox médicaments yoo xam pour waa dëkk bi la c'est pas ay médicaments pour jaay médicament yoo xam ne day jàppale dëkk bi day jàppale ñi dëkk si gox bi loolu lu baax rek lañ si mën a wax. dafa am pourcentage boo xam ne centre bi daf ko alloué cas sociaux yi en dehors même don bi maire bi di jox centre centre dafa am obligation jël en charge euh, dans la mesure du possible euh, les cas sociaux yi ñëw si si centre bi alors ah, loolu moom ça fait partie si suñu obligation yi prise en charge cas sociaux yi. foo dégg centre de santé daal nit ñi dañ koy xeeb. loolu moom moom moom fëpp la nit ku ñuul moo mel noonu mu gën a xam mooy dem naa sama professeur dem naa si waaye loolu moom au njëkk ba la woon mais gis nañ ni temps yi mi ngi changé ni ko nit ñi bañoon au début léegi nit ñaa ngi ñëw di ko fréquenter mi ngi gën a bari ñuy ñëw si centre bi di faju fo parce que lu ñuy am feneen moo am si centre bi looy dem uti hôpital am na si biir centre bi spécialiste yi ngay dem seeti fële dañuy def ba am yëpp si biir centre bi ñuy ñëw di consulter à jour le jour chaque jour am na benn spécialiste fa ne dañuy def rajo dañuy def écho dañuy def yëpp comme hôpital donc xaw ma lu tax gars yi di ko bañ au début la woon mais léegi ñu ngi koy changé. xar kanam bu soppeeku la ñu nemmeeku fii ci baie de Hann ginnaaw ñàkkum cet ga fa ne loolee nag dara waralu ko lu dul ay gaal yu yàqu ak yu amatul benn njëriñ yu nekk ci wetu tefes ga boobu ba léegi dem sax ba daanaka amatuñu benn espace. ba tax askan wi fa yeewoo di koy naqarlu di naqarlu li ne suñu tefes gii di tefesu yaraax muy gaal yu yàqu yi ñu ajal sànnil ñu ko fi géej gu tilim gi loolu rek mooy suñu naqar si yaraax gi ñu bëgg nag ñu jàppale ñu jëleel ñu fi gaal yu yàq ñu yóbbul ñu ko sa paas ba tegal ñu ko fa suñu doom yi am fu ñu fawee mag ñi am fu ñuy toog di waxtaan loolu la ñu soxla. mais lu ñu mënul concevoir mooy comme ay gaal yoo xamante ni borom bëggatu ko ñu sànniwuñu ko fii mu posé ñu problème bon loolu xam nga pour ñu pour ñu bañ ko faaw dañuy xeex wala ñuy xulo te yaakaar naa ni jaru ko war nañu ñi nga xamante ne ni ñoo taxaw di ci financer seen alal war nañu ci mën a dimbali ñu bañ a xeex wala xuloo ñu dooleel ñu ba loolu du nekk parce que lii yokk salte bi loolu la. salte bi ñun la mais ni mu débordee gaal yi la comprendre nga la. parce que gaal yi xoolal yii da koy xa liggéeyatul dematul dañ koy jëw teg ko te mu nekk dépôt loolu tamit nag ñun fu mu nekk nii taxaw nañu pour xeex loolu nag ah taxaw nañ nag pour xeexal parce que suñuy buntu kër yi lañ koy aj ñu am péex suñuy doom ñu génne espace fu ñu fooy amul. gaal yi ñi fi dëkk moom gaal yi ndaw yi rek la mais yi mag yi fi nga xam ne dëkkuñu fi ñoom ñoo ñoo xaw a dëgër bopp ndax bu nawet bi jeexee ba nga xam ne géej gi Euh, seen campagne jeex na mhm. bu leen ajalee fii day indi coow chaque jour fii xeex dafii am. ñoom nag ñoo ngi woo nguur gi ba ci sax ci seen meeru gox bi ngir mu jàppale leen ndax seen cadre de vie mun a soppeeku. maire bi moo war a jóg di joxe délai su fekkente ne nar nañoo àgg foofu tamit mooy ñoom ñu am organisation kii boo xamante ni comité boo xamante ne noonu mooy liggéeyam di def kaas quoi lu fi toog lu mat sa matériel bu fi naree ëpp un an. Mhm. yow ti per ñoom ñooy ñëw kaase ka jël mbalit mi sànni ji loolu mooy mairie la quoi. bëgg nañ ñi si kaw ñu jàppale ñu tefes gi mel daal na mu meloon loolu la ñu soxla ndox mi nii boo si duggee génn sax fii ba suba du xet gi du dañ sa yaram. gis nga tefes gi yëpp ñun ñuy xëy di ko bale suba ak ngoon te mairie fayuñu dañuy bale ba pare du ñu am sax ku ñu jàppale nee ñu mbarit maa ngi nii ñëw leen ngeen dem tuuri ko amuñu ko waaw. sunu mbaal buñ demee géej ba ñëw bëgg aj sunu mbaal fii duñ ko mën a aj ndax ay gaal yu ñëw baare ko dañu bëggoon ñu ku ñu jàppale gaal gu fi dëkkul ñu jëlee la fii gis gaal gi jaakaar nag yow nii yow gaal gu mag yi borom léegi mu am fi deux ans xamuñu sax borom dëkkul yaraax bu dëkkoon yaraax kon ñu mën a wax ak moom mais dëkkul yaraax. yi gën a mun a dimbali ñu am ay garde-fou yoo xamante ne tamit loolu dinañu mun a may doole ci salte bi. ay garde fou yoo xam ne côté bi côté bu nekk ñu teg fa ay chat point chat point yooyu tamit soit mairie moo ñu siy jàppale comprendre nga ma la mairie moo ñu siy jàppale ñu am côté yu secteur bi ñu teg ay chat point yoo xamante ne mairie moo leen di moo leen si jàppale chaque fin du mois moo di mairie dugal loxoom ñooñu tam di def partout ci tefes bi xam nga di def partout ci tefes bi su ko defee. yii dina mën a bëri loo xamee dina dina wàññeeku dina protéger. fukki weer ak juróom-ñaar la liggéeyu stade olympique de Diamniadio war a duré ki ko xamle di jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ci diwaanu senegal monsieur maxtar Ba ak budget bu toll ci téeméer ak juróom ak juróomi milliards ci suñu koppar stade bile dina war a noppi weeru juillet atum 2021 lu jëm ci wàllum ndox ak courant stade bile moo koy gàddul boppam bile stade. tollu ci juróom fukki junney place moo war a dalal the olympique de la jeunesse yi Sénégal war a organiser ci atum 2022 tàggat yaram ñu tàmbalee ko ak tiis bi dal ci monde sport di génn àdduna basketteur américain bii di Kobe Bryant ak Gianna di doomam bu jigéen ci benn crash hélicoptère dimanche bi ñu génn ay atam tollu woon ci ñeen fukk ak benn staru Lakers bi def palmarès bu mucc ayib le meilleur marqueur NBA juróomi champion NBA meilleur joueur NBA fukki participation ak juróom-ñaar ci All Star Game ak ñaari titre olympique ba tax àdduna bi yëpp àndandoo diko rendre dernier hommage. di leen mbokki internet yi ci bi rendez-vous dimanche prochain suñu journal de la semaine.